bokk na ci li signe yi wane ne développement amut mooy li ngay jëli di ko indi gën a bari li jël di ko yóbbu yow loola euh, lu doy waar am réew mu dem ba ay pont sax pont mënoo koo defar dem ba yenn pièces détachées yu ndaw yoo xam ne euh, askan wi dañ koo aajowal seenu dund ngir nga am ko da génn réew mi ma ne loolu responsabilité la boo xam ne ñëpp ci am responsable muy état muy muy keneen ñëpp war a ànd xalaat ci lool nan la ñuy jaar ba mu xam nga ne fii ci kër Momar Sarr ci lu yàgg ay ci gannaaw am ak jàng boobu ba léegi li fi jaar bu yàggul rek wane na ko muy gàttañ lu gu feeñ lool ci wàllu liggéey ci wàllu santé loo xam ne joxe na ay leçon yu doy waar ak sax ci wàllu koom-koom li ñuy tuddee euh, mën a doyloo li nga am wala li nga am doy xam nga ne mbas mii fi jaar nga xam ne tëj na àdduna ba kenn mënatul a génn dem nga xam ne ka def bu feebaree mën a am kattanu génn dem faju ji ci bitim réew dem na ba mënatu a génn bitim réew donte mi ngi alalam kooku war naa joxe ab leçon ci ne kenn ku nekk fa nga nekk war naa am fajukaay yoo xam ne ñëpp fa war mën a fajoo leçon boobu lañ ci war a jëkk tiire ci loolu parce que jamono mën naa ñëw joo xam ne même yow mi am kàttanu faju ji bitim réew doo mën a dem parce que tëj nañ bitim réew su boobaa lu ko sës mooy 60 ans yi ba nga tàmbalee liggéey ba léegi ana ban hôpital nga def boo xam ne yow man nga